prison bu Rebeuss sax nag dañ ko daal di woon jaay ci koppar gu toll ci huit milliards de francs CFA ci superficie ba nga xamante ne si sax nag ëpp na benn hectare fii ci Dakar te boo loolee sax nag waxoon na jaax rek ci koppar gu toll ci quarante milliards de francs CFA yamul ca loolee sax nag moom Ousmane Sonko daan na cee daal di dolli rek nekk prison bu Cap Manuel aussi sax nag ni régime bi fi nekkoon di régime Macky Sall sax nag daan nañu woon daal di jaay li nga xamante ne si sax nag moo di prison bu Cap Manuel yamul ca loolee sax na moom moomee sax naka naxoon nañ ko jaay moom Ousmane Sonko loolu nag ginnaaw kàddu yi nga xam ne daan na koy daal di wax. ba tey ci ay révélation wax na it ci li nga xamante ne si moo jëm ci mbirum réduction des comptes ci it benn compte bancaire ba nga xamante ne si nag suñu autorité yi yeesi bu ñu defi seen ay saytu daan nañ cee daal di fekk rek lu ëpp 1000 milliards de francs CFA. donte ni sax nag moom premier ministre boobee sax nag Ousmane Sonko bëggut rek àdd wala sax nag fësal turu ka nga xamante ne si moom la koppar. googee daal di concerné wante ci yenn condition nag la ñu daal di découvrir li nga xamante ne si nag moo di mille milliards ci compte benn personne boobee. ay révélation yit daan na koy def ci lu jëm rek ci salaire ba nga xam ni moom lay daal di jot chaque fin du mois te loolee sax nag daan nay daal di xamle chaque mois rek moom dinañ ko daal di fay koppar gu toll ci 4,3 millions de francs CFA.